conseil ci délibération mi dafa jël tout le débat politico-judiciaire qu'il y a eu autour de Sonko et de Pastef tege ko nale conseil mu ne dafa rejeter la candidature de Ousmane Sonko ndax dañu ko condamné euh, pour euh, pour diffamation bu générer une inéligibilité de cinq ans mm-hmm. et il eu tout un débat Euh, sur la euh, la condamnation de Ousmane Sonko dans l'affaire Adji Sarr condamnation bu ko valoir euh, son retrait euh, des listes des listes des listes électorales condamnation bu ko valoir xëy na euh, du am un casier judiciaire du am un casier judiciaire vierge conseil dafa tegee noonu dossier boobu yëpp mu ne moom lii moo tax mu rejeté candidature am idem pour Bassirou Diomaye ñu ne Pastef dissous aucun membre d'un parti dissous mënul conquérir euh, pour des élections avant telle date conseil jël loolu yëpp euh, teg ko fële ne l'article 821 du code euh, des obligations civiles et commerciales waxu légiféré wul ci wàllu parti politique yi beneen affaire bi ma jaaxal mooy dañ ne si vous êtes condamné à plus de six mois Ousmane Sonko n'est pas condamné à plus de six mois il est condamné à six mois de prison euh, avec euh, avec sursis ban lecture nga am sur la démarche du conseil constitutionnel. xam nga xam nga euh, les hautes juridictions soo génnee fukki argument fukk ñu jàpp ne benn argument bi doy na fukki argument juróom-ñeenti argument bi dañ koy teg de côté. Euh, soo seetloo bu ñu demee euh, ci cour suprême. affaire inscription Sonko bu Ziguinchor bi Cour suprême dafa ne attendu sur le deuxième ou troisième moyen sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens foofu lañ ko yemale conseil constitutionnel soxlawul argument bu nekk mu jël ko su amee benn rek bu ko doy boobu lay jël pour dire que bii baaxul da nga juum. mais est-ce que ça veut dire que yeneen yi. déedéet légalul déedéet dañ ko examiné wul. ñoom di leen li dañu jàpp ne suñu waxee bii day tax ñu ne kii mënul nekk candidat donc ci des amul solo benn boobu doy na leen d'accord euh, sa ab am nga sa ab xale bu ñëw def lu bëri def na lii xeex na ak diw xeex ak kële xeex ñu war ko duma bàyyi bi ne duma xool benn bu ci nekk bii rek jar na ma duma la ji des du duma ko xool benn bii mu jar ñu duma la ci boobu laa lay duma pour Sonko du six mois euh, et plus ñaar moo am suñ la condamné à six mois au moins jëm kaw da ngay am euh, une euh, inéligibilité définitive su dee c'est si c'est c'est six mois et plus si c'est au plus six mois da ngay am inéligibilité de cinq ans loolu la conseil bi wax maintenant euh, li ci des li Maymuna man duma toppatoo li nga xam ne bi mais waxuñu 6 mois et plus waxuñu au plus de 6 mois dañoo ne condamné à 6 mois de prison avec sursis. waaw quand la quand la quand la peine est, est, est égale ou inférieure à 6 mois avec sursis l'inéligibilité est de c'est euh, euh, de 6 mois euh, euh, au plus 6 mois avec sursis l'inéligibilité et de cinq ans plus de 6 mois d'inéligibilité et définitive amul app sauf ndax ñu réabilité la loolu la yoon wax maximum six mois minimum six mois maximum six mois c'est cinq ans plus de six mois c'est définitif loolu la yoon wax. mais est-ce que mënuñu liir les décisions du conseil sous un angle euh, plutôt politique ñu xalaatoon ne parrainage bi procédure yi ñu teg yépp euh, dina tax ñu gën a mën a lay mais finalement euh, on a eu un nombre de candidats jamais égalé. mais loolu finalement c'est affaire bi les les les mailles sont grosses. oui mais xam nga nag xam nga conseil. c'est vrai que dans certains pays soo demee France Laurent Fabius ancien premier ministre moom mooy président du conseil constitutionnel dañ naan le conseil c'est à la fois une instance juridictionnelle mais une instance politique juridictionnelle politique du fa du fa du fa du fa jógee parfois le conseil mais loolu beneen débat la parce que bëgguma ci dugg le conseil il arrive que mu euh, euh, statuer en si le conseil avait dit par exemple que euh, Bassirou Diomaye Faye est inéligible parce que euh, il a il est membre d'une coalition mal mal faite qu'est-ce qu'ils vont faire de Boun Abdallah Dionne ils vont dire que Boun Abdallah Dionne duñ ci wax dara parce qu'il y a pas de requête contre lui donc il y a en équité mënoo bàyyi bi mënoo yàq bi bàyyi kee donc le conseil il lui arrive aussi de de statuer en équité parce que c'est la nature même de, de, de la juridiction c'est pas comme la cour de cassation la cour de cassation xamul équité droit la xam et exclusivement droit pour voir si le droit a été violé ou pas alors que le conseil dans certaines circonstances dina dugal un petit peu d'appréciation politique en, en, en termes de d'équité en termes de euh, permettre à tout le monde la libre expression parce que le conseil veille à la libre expression du suffrage, à ce qu'il y ait égalité, équité dans la gestion euh, du processus électoral. Donc la, le Conseil tient compte de ça. Donc euh, Conseil, euh, beneen beneen beneen beneen dimension la quand quand on arrive au Conseil su amoon cinquante candidats tous les cinquante candidats respectent la loi que voulez-vous que le Conseil fasse les cinquante candidats respectent la loi en ce moment-là il nous appartient l'électeur de faire la part des choses en disant quand même ëpp na tey Sénégal yëpp nangu nañu ne que vingt candidats ëpp na bëri na waxuma au départ y na avait deux cent quatre-vingts su doon deux cent quatre-vingts yëpp respecté nañu loi bi comme deux cent quatre-vingts candidats naka lañu koy naka la defee campagne ñu campagne parce que dafay dafay créer la confusion chez l'électeur parce que l'électeur il veut décider de façon libre c'est ça un électeur l'électeur c'est un c'est un c'est un adulte à qui on parle et à qui on fait des propositions donc su dee deux cent nit ñooy ñëw ku nekk mu déglu la il est confus or on aurait pu avoir deux cent candidats déjà avec vingt candidats nga toog fii sa kër toog ci télévision bi vingt nit di wax ku nekk nga bëgg ko déglu tu n'as même pas le temps d'écouter ba comprendre donc da ngay ça ça crée une confusion le pays les grandes démocraties les grands pays beaucoup plus euh, ancrés dans la démocratie que suñu dëkk amuñu vingt candidats donc suñ ko amee sa pose problème donc les mailles ne sont pas